tey ma ñëw fekk ko fi moom kan su la neexee nga ne booy Sila su la neexee nga ne Sila booy mu jëm la neuf nag journée Diouf production Sila ziar naa la. ginnaaw bañ sant yàlla julli si yërënte bi sant suñuy ñaari waajur di ñaan sama papa yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana di ñaan sama yaay yàlla na ko yàlla may di ñaan Abdou di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana xaare ko àjjana waaw suñu grand bu baax la woon jooy nañ ko trop mais yàlla moom soxla kenn ku soxla dangay ñaax waaw du nuyu ñëpp nuyu waa équipe Boso saw ñoom ñëpp waaw du ñuy gaa yëpp waaw. mais maa ngi si maa ngi si maa ngi si sama ruq xam nga waaw affaire moom fan nga xaw a loolu waaw. bëri naa fi caar bëri naa fi armée xam nga yàlla def lu gën mais combat bi moom incha allah day leer incha allah rabi léppay leer si kàttanu yàlla combat bi ñëw la 9 décembre incha allah nga am xale bi ni ko waxee sax kiriku et petit léger mon ami kiriku nga am na kiriku. kiriku laa am kiriku xam nga caravane boobu les sorcières boobu noonu. <laughs> Euh, comme ça kiirugu bi nga wax ma ne caravane boobu doon ko la sorcière boobu ah. kooku motul sorcière eh. sorcière baa ngi nii booy si laa la neuf cey la neuf dina xam ne caravane du sorcière sorcière bu mag baa ngi nii dina la xaar la neuf incha dina ñaanal wér dina ñaan sa mbokk yëpp wér la neuf ma teg la lu góor mu sa teg kiirugu eh, dama ko laaj mu ne ma idima ma booy si juum moo tax ma jël ko damaa dugg jàmm gën juum wara a dugaat jàmm gën pour rectifier defet boobu neen défaite bi mu jëlee jàmm gën moo tax mu dugaat jàmm gën pour rectifier défaite boobu. non feneen la waroon dem pour rectifier défaite boobu mais dafa dugaat fu mu woon foofu la dugaat xam nga ne moom dina fa juumaat si kàttanu yàlla dina fa juumaat lan neuf moom doo am dara te lu mu foog amul fu ñëwee dina fekk lu wow xong lu baax yow lu mel ne. dama ko laaj ma ne ko da nga faa dugg Souley Gaye daan la nga duggaat fa jël Boy Sylla mu ne ma li si Souley li si Souley Gaye du si Boy Sylla Boy Sylla gën a neex a non lu si su lay gane du si booy si mais combat bi nii nii nii boo xam ne combat gi bu ma gën a font sama àdduna bu ma gën a fonk sama àdduna barki Seydina Mohamed non parce que daa fu ma fu ma jógee te du yoon sax ma fay te ay ay gàllankoor la gaa yàlla nag mooy maye ndam mais bi si kàttanu yàlla combat bi si kàttanu yàlla maay moom ndam bi soobee yàlla suñu borom. booy si la mu bëre woon digganteem ak Poulum Junior combat bu neex ba Iba Mar mën nga xalaat si combat bi. bi mooy dàq bi mooy dàq parce que booy bi dafa ma wax loo xamante ne nii dafa ma wax tàppen nga ñema woo xeex waaw ñema woo xeex français nga lépp wax na ma ko xam nga parce que waaw moom doomu bun la man doomu tëlimaam jaar laa jaamu gën foora siga mbaaw xam nga ne foofu ragal amu fa mooy loolu noonu xam nga lépp lépp mu ma tegal noonu jour boobaa dina rëccu lu mu waxee woon loolu noonu parce que français bi mun naa sol yëre nii nekk français mais maa moom ma takk jaaje yi maag yow ma takk jaaje yi kiriku kiriku maag yow ma takk jaaje yi at bi ne piib fu ma la puusal nii fu ma la fu ma la puusal foofu ngay puus fu ma la taxawal foofu ngay taxaw si kàttanu yàlla kiriku du benn booy nee na foo nekk mu fekk la fa dafa fas yéene duma la fas yéene bëre dafa fas yéene duma la xam nga ñu koy wax man instant bi lu si ta waxoon rek dañ maa yàgg di ma nax parce que dañ lay ñëw naan la dañuy xeex ak yow dañuy liw yow nga ñëw samp jaaga boobu ñu la waxoon def luñ la wax fu ñëwee duñ ci def cent franc moo tax xam nga lu tax instant mënatuma basé wu si ay waxi mbër samay waxi bopp laa ja laa laa wu te fu ma ko jàppee dinaa ko duma dinaa ko daan te lu mu indi dinaa ko si fekk si kàttanu yàlla. yow boo si la doo xeex ak kiriku. non kiriku laay ragal si xeex ak moom kiriku laay ragal si xeex ak moom karim fu ko neexee. di teg suñu reliquat samp jaaga laa la wax de première cinq minutes bi nañu ko may ñu rayante deuxième deuxième bi lu waaye def boppam. li nga bëree woon sa diggante pour mu yegg la fenn fi nga nga bëre mu yegg nga egg ko fenn bëre ngeen di mbootante di jéggante fi mu mën nga xaar sa gu ma sax barki arxuraan billaa wallaay tàllaay du caméra yaa tàq moo tax may wax li ma mën si bëre waneegu ma ko si làmb xëy na nag bis bee mais fu bis bi jotee rek incha allah rabi nañu xam na carrément Pom du moromu new kii ko du maag moom sax. dugg ñetti yoon nga fay dugg. yaakaar naa. dugg nga fa daan dansé. dugg fa Pulum si yor daan la. nga duggaat fa tey. waaw ma duggaat fa le 9 décembre rek le décembre lu ko gars yi wax décembre dañuy xotti tali bi. xotti xotti tali bi dugal si kii <laughs> ah, ko. maal nga. non challenge bi lool la décembre bi dañuy xotti tali bi dugal si kiriku si kattanu yàlla solo ganbee nekk noonu xotti tali bi dugal si kiriku lan lañ mën xaar si boo Sylla la neuf la neuf ñu ngi xaar wow koŋ lu dëj lu dëgër këcc maa la wax loolu noonu fekkee entraînement def nañ ko ba mot fekkee wàllu musique ñu ngi si sabalu fekk fu ñu yaakaar ne fu ñu demee nañu may ndam ñu ngi fay dem lu si des nag yàlla suñu borom mooy désiré mais ñu ngi ñaan yàlla di am yakin di ñaan la 9 décembre incha allah yàlla kàttan nañu may ñu ndam ci kaw ko non bu moom nee na day ñëw xeex si te nee na daf mooy door mu daanu nee naa ko vaar am na vaar am na fu moom dóor mu daanu boobu la yàq man maa koy dóor ba mu tëddal boppam maa koy dóor te dama am si moom ñëwantal xamul loolu mais dafa yàq loolu parce que man xam nga rek dafa nekk mbër boo xamante nii waaw mooy loolu quoi xam tem no xamul tax après fu ñu bëree pare dinaa ko ko wax fu ñu bëree pare dinaa ko wax mais la 9 décembre dinaa ko dóor dóor yu métti yoo xamante ne ni fu mu déggati si laa day taf noppam ma ne le 9 décembre dinaa ko dóor door yu métti yoo xam ne fu mu déggati si laa day taf noppam le xam nga li Mor Diouf waaw Diouf moom nekk sunu waaw sunu grand bu baax promoteur boo xamante ni barki Alxuraan foo ko vocalé mu tontu la nga woo ko téléphone mu mu mu wuyu la loolu yombul si promoteur yi wàccee boppam barki Alxuraan fu mu la gis day mel ni fu mu gisee tey day mel ni xam na ku mu gisee kiriku day mel ni waaye yow yàgg nañoo nekk di ko jaajëfal le 9 décembre di waay waxtu waa tëli maam jaara waa jàmm gën si ka mbaaw tëli karo marché bu ndaw ah ñëpp nañ waaj incha allah rabi journée Mor Diouf warut a yomb journée Mor nañ ñëw duy esaat ba fees del del del parce que Mor moo ko jar dañ ne lu ko jar a ko jar te Mor da kaa jar barki Alxuraanu Karim ah. waaw ay ñu mel ni ay Cheikh Bari Bib Diop Caabu Njaase sama grand billahi caatu moxal bëri nañ fa waaye dañ fa saf sàpp moo tax loolu foofu lu yomb du ñooy ànd di dem matinal du ñëwaat kon lu yomb du am foofu noonu waaw kirugu wallahi dañuy problème sam wi kirugu sam wi ma dañuy problème a dañuy problème mi hulota mi dogota problème kirugu mbimami sila hulota dogota wallahi kangaɗo haldata kangaɗo mooy dof bi lay waxal mooy dof bi lay waxal kang foore bi lay waxal le 9 décembre lépp luy nelaw si si laa dina yeew si kàttanu yàlla maa ngi koy digg supporter yëpp le 9 décembre lépp lu doon nelaw si man dina yeew si kàttanu yàlla suñu borom. lan nga autorité yi dëkk jàmm ngeen si Kamba. waaw di wax autorité yi rek nañ ñëw jàpp si waaw sunu ma mairie bi ma dendal nii waaw Alioune Badara Beye maa ngi koy woo bu baax a baax a baax mu ñëw jàpp si combat ñu gis liggéey yu mu tàmbali di liggéey di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may mu yeggali ko jàmm ak salaam. mu ngi di defar ay pavé ay ay karo affaire yooyu pour bugg am yenn gox yoo xamante ne nii day taandox mu defa ay tëli karo affaire yooyu noonu kon ñu ngi koy ñaanal lu mébét bu mu am yàlla na ko yàlla dimbali suturaal ko ba mu yeggali ko di ñaan président de la république na ko teg loxo parce que moom kat la waaw baykatu waar la boolewul daraa ki wax waaw foo ko woo mu wuy si la mu ngi si jàq yi jumaa yi école yi lépp mu fa waaw di ko ñaanal nag di ko woo nag si combat bi le 9 décembre incha allah rabi ñëw jàpp si ak DG Bas DG Bas maa lay woo bu baax a baax a baax waa mairie bi yëpp ñu ngi leen di woo ñu ñëw jàpp si làmb ji waaw Nour Transitaire lu ma ko fàtte sama grand sama mag sama lépp di ko ñaanal na ñëw ñëw jàpp si combat bi bu baax a baax waaw ku si mel ni sunu monsieur le maire dëkk waaw waa mairie Mumba Coko gollere yaye monsieur le maire aboubacary sow yaye miɗen nodduma e combat ene feewi feewi feewi miɗen nodduma e combat mi yi combat jawtuɗo o waw kam haalis ha heewi heewi mais oɗo inchallah rabi mimi addanma ndam o ma yi jaajëfal waaw di woo sama boy yi awma seen fay barki alxuraanu karim seen i cent ñaar fukk la jël di ko dajale di ma ko jox wallaay da ngay jékki-jékki ñëw mbër am luñ la jox ñooñu amul seen fay billaay seen cent francs moo jox moo gënal keneen ñëw jox ma ay millions wa billaay wallaay taalaay parce que ñoom day mel ni làmb bi ñoom ñoo koy bëre wallahi azim coon di si daj ay coono yu méttee métti métti ku si mel ni Ibu Nungu ay ñoom Thiam Ngañ Ron Souleymane ay lay waa di si woo booy Bakar Waara ñoom ñëpp dañuy ñëw di jàpp si combat bi bu baax a baax a baax baax a baax billaay wallaay di woowaat waa mairie nag waaw Mamadou Ali Mamadou Ali DG Mamadou Ali mi doon noddama e combat ono feewi feewi feewi waa mairie onon fof mi ɗon noddoma e combat e waa Sika Mbaaw nag Diamaguène teli Mame Diarra sama baas waa baax yaay waa ba yaay bàyyi ma kenn mu limee bàyyi Modou rek waaw ñoom Samba ñoom ñëpp maa ngi di woo si combat bi le 9 décembre incha allah le 9 suñu le la le 10 ñu jox la jëri ko si Gorofine si kàttanu yàlla waa Nimzaat wa Xiyaatu waaw waa Cheikh na Cheikh Sadbu yëpp maa ngi képp famille Cheikh na Cheikh Sadbu maa lay woo si combat bi di la ñaanal nga ñaanal ma yàlla suturaal ma may ma ndam xam nga fu ko defee ñu mun a waaj Nimzaat ñun heure bu ñu jugee Nimzaat rek commencé nañ condamné pour dellu Nimzaat. waaw boo ñaaw ñu ngi koy woo suñu mbokku taalibe yi waaw ñu si mel ni ay ñoom feeraay ñu ngi leen di woo si combat bi suñu mbokku taalibe Cheikh na Cheikh Sadbu la ñun amuñ lu dul waa Cheikh na Cheikh waaw. waaw moom grand bu baax la dañuy déggante ñu tamit ñu ngi koy woo si combat bi xam nga ñun amuñ lu dul waa kër Cheikh si stade ba amuñ leen sut waaw du nuyu nag tarixa yëpp waaw tarixa Touba Limaamu Laay Njaasaan bu Gunta ñëpp ñu ngi leen di woo daal ñi saaku si yéen ñaan incha allah rabi man kan mooy sama idole si làmb <laughs> yaay wax lu garaaw noonu noonu noonu la billaay waxee sama dëgg nag ah kéwal bokk na si mbër gi mu gën a neex kéwal billaay wallaay taalaay barki Alxuraanu Karim newul saa dunduroo nii sax mais bokk na si mbër boo xamante ne nii man waaw maa koy ñaanal si lu mu nekk yàlla na si jóge ak jàmm salaam barki Seydina wa di ko ñaanal si lu mu jóge nii yàlla na ko dodoog jàmm ak salaam parce que ku ko xam bu njëkk xam ko tay gi xam na Kewel am na lu ne si moom di ko waa Bawol yàlla nañ ko jàppale mbër kaamil la barki alxuraanu karim ah sañ-sañ bi fit bu muy teg te fu la munee dala la munee dala koy won man jàmm ngeen laa dëkk mais moom ku ma ku ma ku ma naw la maanaam. xam nga xam nga si loolu. ndax dafa bëreeg sa mag teewul nga taxaw di wax moom di wax xam naa loolu. noo xam naa loolu. bëri na Sunjata bëri na ak Maama bëri naag kii lu mu tuddee sax qualifié loolu yëpp maa ñëw esaat teewlu faralu ma ko mais tamit mooy loolu lool lu nekk si man laa wax wallahi azim ñun duñ daw laaxu mais nit am loo xam ne yàlla moo koy def si nit te loolu def si man maanaam man mënu ma tricher loolu la quoi. dégg la booy si laa wax. waaw di ko ñaanal wér nag di ko wax waaw noo découragé taxaw dëgg suul tànk yi. billaahi na ko waa bool jaabale nag jaajëf